salaamaaleykum ma ñëwaat ma ñëwaat tuuti rek wax si lu jëm si euh, la caravane de la liberté bi nga xam ne période yi ñuy wax ni ñu ngi tollu Tambacounda avant mu dëgg Vélingara métti na trop bon yoon yëpp a métti ah, mais bu Vélingara bi moo gën a yéeméti la fekk ñu baari cortège am mu wàcc dugg si àll bi jël beneen oto tey moom leen gis image yu daw yaram euh, man leen wax ne yéen ñi nga xamante ne amaana yéen yéen nekk si kaw yéen nekk si nguur gi ñi yéen yor kàddu yi yéen yor ndigal yi ndigal yi yéen la joxe gaa yi ndigal ñuy def euh, pour ngeen bàyyi li ngeen di def Sonko Ousmane am na droit def caravanam caravane de la liberté comme ni ma ko tuddee comme ñeneen ak ñeneen rek 2011 gis neen li xewoon te yaakaar naa lii xewoon nii lu jëm si jëmm ji di Ousmane Sonko xewul woon si 2011 ka fa nekkoon comme opposant phare opposant bu ràññeeku bi fi nekkoon 2011 lii yëpp dundu ko woon moo tax ma di leen wax ne. Euh, bu leen sonn. depuis trois ans ba tey aji yow mag nga. Mhm. aji buñ la waxulee dëgg ñi la uuf. ndax alalu àdduna nañ la wax ne de dañuy dee Sénégal kenn dundoo fa te dundatu fa cent ans. Mhm. aji jàkkaarloo ak vie bi nga xam ne àdduna du dara Europe bi ñu lay naxee pour ñu ñëw fi ñun ñu fi dëkk bëggatuñ fi dara. Mhm. daw ñibbi la ñu bëgg. doo amoo vie ñun dañoo liggéey ba dëng. pour ñu wax la dëgg amuñu vie. buñ la hmm. gëmee Amérique tam Amérique du dara ñi fa dëkk bu ñu amoon dara du ñu ñëw di wër si pétrole bi nekk Sénégal. Hmm. su amoon dara du ñëw français yi du ñu ñett sénégalais yi ay at yu yàgg pour bugg ñu teggi esclavage bi moo tax ñu hmm. tànc Ousmane Sonko nii. ak il faut ñu wax la la vérité. ak dara amul Europe dara amul Amérique. gëmal sa bopp. nga gëm sa bii. nga xam ne ne mami mami beneen bi mooy sénégalais bu ci nekk. alors fu may daanelee mooy sénégalais bu ci nekk. dafa mhm. am responsabilité ci li nga xam ne mooy xew Sénégal. gis nga ab réew on dit toujours benn mbir. dañu naan force. Mhm. reste du loi bi mais peuple bi moo yor doole askan. parce que mhm. ab li koy defar ci askan gi lay jóge gis nga nit lii xew Sénégal ki jàpp ne tey la xew c'est parce que da nga xamul li xew li xewoon démb. seetaan nañ du Dia. ba ñu sac sacrifié ko politiquement ba mu jamono yi. merci seetaan seetaan nañu Cheikh Anta Diop ba li ma waroon servir Sénégalais servir ko Afrique mujjul nekk. tey am nañ ndono goo xam ne en quelque sorte même bu nekkul dara mais ci ay principe sénégalais bu ci nekk yaa ngi ciy gis sa bopp ku jàpp ne. ku jàpp ne concerné wu la c'est parce que li ngay dund tey gëmoo ne say doom mën na ko dund suba te bëggu leen ko teggil lu ñu gëm mooy ab réew li koy doxal dëgg la no justice no peace balaa ngay ñaan jàmm da ngay ñaan justice ba pare balaa ngay liggéeyal jàmm da ngay liggéey justice ba pare nit ki mënoo tabax jus jàmm mukk te tabaxoo ko ci dëgg donc li fi xew mm-hmm. moom mooy ñun jeunes yi ñu li fi xam mooy ñun sénégalais yi li fi xew mooy ku ci nekk ci ñun xamal ne lay changé sa réew mi si sa responsabilité la jógee déedéet. Mhm. lañ lay gëmloo di la wax ne carrément que ne dëgg la cause bu ci nekk am na nu ñu koy xeexee mais dama ne tey sénégalais bu ci nekk dafa jot mu jël ay responsabilité xam ne suñu destin wu askan dafa dépendre ci ku nekk ci ñun lay politique. nañ ko teg fële lay gëm-gëm nañ ko teg fële lu ëpp solo mooy lu ñu pencoo lu ñu bokk te kenn du ko jël bàyyi sa morom man nag danaa ci def sama kéemtulaay kattan yow yow nga def sa kamti laay kàttan ba ku ci nekk ëllëg si biir la ñuy waxtaanee ba ku ci nekk sa xol di jóg suñuy doom mën a weesu loolu ku baax soxna si wax na ko léegi Sénégal cinquante pour cent suñu réserve économique maanaam li nga xam ne moom mooy impôt ay taxes yu dugg suñu biir gafa réew cinquante pour cent réserve boobu noonu ci ay banques étrangères lay jëm nga gis CFA nu mu commencé dix lu mu commencé seer lool pour yenn dëkk pour yenn dëkk régions yi biir Sénégal Sénégal demal yenn yenn régions yi nag nga gis liquide da weesu deux mille francs ko parce que CFA commencé na dis gan na ci loxo sénégalais yi Sénégal xoolal économie bi 30 pour cent surtout économie lépp ñu concentré ko Dakar wax ma décentralisation biir Sénégal fan la xewee wax ma carrément en quelque sorte yow Sénégal bu nekkee réew mu nekkee économie réseau bu nekk benn économie la yor te économie boobu ñëpp dañu cee gis seen bopp Dakar ba Dakar moom mooy centre Sénégal coincé xat ba nga xam ne même pour mu nit ñi nooy sax problème la loolu ñu koy dund depuis ay soixantaine d'années te Sénégal malgré récession yëpp mu yor ku baax ñuy sacrifier suñu suñu réew ñu nekk ay complice ku ci nekk ci ñun bu gëmee ne carrément que ne luy changer réew mi day dépendre ci ñun mën na nekk donc li ma gëm mooy Ousmane Sonko warul wéet nit ki ci mel ni Mamadou Dia Ousmane Sonko warul wéet ba ku ci mel ni Cheikh Anta Diop ñu xaar ba ba way li wees ñuy taxaw naan ay bu doon ñoom ñuy taxaw naan ay lañ fa defoon il mu ngi fi mu ngi koy dund te principe bi dafa ma laal dafa la laal dafa laal ñu bëri ñu nekk ci laaj bi ku ci nekk na indi son pierre à l'édifice loolu ëpp solo wax ji loolu ëpp solo nekk ci mbedd mi ku ci nekk di xiiroo Sénégal li koy defar man la yow la ñun la. merci ah, mais mais mais. c'est vrai mais yéen yéen xaaxa à personne à personne fini nii ah, ah même tuuti waaw à personne même tuuti ah à personne même tuuti. yow xaaral euh, xaar di ba xaar may ko tuuti rek moom du ah, yàgg ah, ah. après mu kii parce que comme dafa dafa xaw a yàgg. léegi nag c'est maintenant ou jamais dama dama gëm ne c'est maintenant c'est pas un combat à perdre combat dañu ko gagné ba pare malgré nag nekkuma ko mais man du ma yàgg Sénégal laa jëm parce que am na yoo xam ne doo fi taxaw di ko wax quoi parce que bu heure dee jotee da ngay dee pour sa réew quoi parce que tamit lii xew Sénégal toog fii di wax faj ko xam nga li ma la ku ne da ngay dem fekkee li nga bosu dee bu jotee dee la kenn kenn du dee te sa heure dee man nag sama wax du ci bari xam ma war a def man dinaa ko def samay responsable ko Fadel waxee ku nekk dinañ la laaj parce que kenn choisir lu nekk Sénégal yàlla moo la def Sénégal ku nekk dinañ la laaj sa responsable de sa kanamu borom di rendre compte kon nag loo ci mën a def ak lu la Sénégal jaral la la ko jaral nga dem def ko du ma nag kenn kaay def li may def li ma def li may def man li ma jaral fan loolu laay lu mu la jaral na nga ko ci parce que c'est le pour Sénégal baax benn yoon xam nga am na occasion yoo xam na du présenté sa jour si àdduna benn na lay ci sa àdduna boo ko saisiree baax na boo ko saisir bu demee dem na te occasion bi nii du occasion bu ñuy raté waaw euh, waaw ma Miranda may wàcc dégg nga ba ba ma Miranda ma wàcc merci ma Miranda assassin ma ma ma ah, wàcc ba pare ma sànni benn kàddu ma wàcc. <laughs> man dama diva diva ah, rek boo nekkee patriote da ngay dékkul rek. nen wàcc déedéet xale nekkal dékkul rek patriote dékkul rek. ma Biranda ah. ma sànni ñaari kàddu rek ma wàcc. xam nga lu ma naqari ma Biranda. comme damay permettre ñëpp. waaw damay jox ñëpp occasion ñëpp a war a wax a war a wax. waaw dañuy damay wàcc rek damay wax ñaari moo rek ma wàcc lenn rek moo am laa am lu ma naqari. Euh, tubaab yi mhm. tubaab yi seen monument yëpp xoolal dañ dem ba màgget kenn reyu leen Sénégal déglul rek dangay ngay commencé depuis Amérique Martin Luther King dañ ko rey. Bob Marley dañ ko rey. léegi ñun lu tax ñu war a seetaan tubaab yi ñoom seen seen monument yëpp dañu dund at yu yàgg pourquoi ñun suñu monument yi ñun Afrique ñu leen téye ñuy seetaan ku ñu am ku baax koo xam ne dafa feeñ rek saa yu ñëwee chaque cent ans la ñu xoole ba ñu rey ko pour lan. man sama pose la question dañ nekk 2023 réveil des consciences ñëpp a yeewu ñëpp a ubbi seen bët pourquoi ñun Afrique waruñu taxaw surtout maa ñun sénégalais yi même bu ñu jàngulee sax.